moko tapal tappal ndombal tank go xamanteni lenn lu yalla fell la ci dolem jox kenn mënta xex ak mom waye nak dole jojit dañoo japp ne ñun ñepp dañoo boole sun dole kenn ku ci nek jël ci sa dole ñu boole ko muy dole ju mag ñu yëkëti jox la ko ne la manam dole ji kat dañ la ko jox ngir nga samal ñu sunu def ngir nga samal ñu sunu alal ngir nga samal ñu sunu rew mepp tegal ñu ci rew mi aw yoon waye gis nañ ni wax deug yalla nii ñu def Cheikh Bara Ndiaye teguwul ci loo xamante ni maam jàpp nañu yoon la ndax ak lu mën a xew rek su fekkoon ne sax déglu nañ ko leneen lañ ko doon tuumaal ñu ne tuuma ji kat lii ak lii ak lii moo ko def ñu téye ko ba nëgë ni téewul sax dañuy ñaan waaye loolu lépp nag dafa amul nag wax dëgg yàlla waaw koo déglu delloo ko loo jële jëloon ci moom seetal ko may ko liberté provisoire ñu né dété way procureur bañ défat ab appel ñun xam nañ procureur de la république kan la xam nañ kilifaam te jot jot jot nañ ni ñiko té muy président Macky Sall mi nga xamanteni muy président de la république bu né won Cheikh Bara moom nañ ko bay wallahi asim Cheikh Bara dafa fanam kon mom ci bopam lañuy ñaan mom lañuy talal ay loxo mom lañuy ñuy waxal mu delloo si ñu Cheikh Bara ñu dem faji ko ñun bu ñu ko delloo si ne insha allah rabbi ñun dañ ko faji lolu moy li nga xamanteni mom lañu bëgg di wax nak mbolam kilifa diine yo xamanteni ño nek ci Touba muy tiwa won ba ci seigne Moustapha si mi nga xamante ni mooy borom mustafsidin wala mustafsidaat yàlla xamna ne ay ñaanam ak taxawaayam yep ci Cheikh Bara ndjay xam nañ ko ci bu baakha baakha baax مولانا baax Mawlana سيرن ماي نياس ميغا Niass موي خليفه مولانا شيخ ابراهيم نياس Mawlana سي اي جيغو واخنا سي با ay jéego بيغا na ci ba بو باخا باخ سي نيورو جوغينا با نيورو ko با في غير سيرت شيخ Nioro jóge dem na ci kilifa gum yaakaar na bu ci waxee danañ ko ci danañ ko bàyyi dem na ci wax na ci sëriñ Abdou Samane Mbacke Soxna bu Xaadim Rasul moom kenn du ko fàtte ndax ba tey jii nii nii nii jokkoon nañ ak moom te li ko ci war lépp def na ci saa yu wootee wax ak kilifa yi bañ na danañ ko bàyyi muy dundee yaakaar jékki-jékki ci rajo yi ci télé yi ñu naan bàyyi nañ ko mu am ci yaakaar woo njaboot gi ñu ne bàyyiwuñu ko loolu dafa tas yaakaaram bu baax a baax te nag ala kulli xaal kilifa dong la kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax a ci seen taxawaay li des daal Moy, état état dal mom mo ci dess état nak buñ ko waxe moy Macky Sall bu ne nañ ko asim lañ koy bàyyi kon ñong koy ñaan lillahi wa li mu di bayil ñu Cheikh bari Ndiaye mu dellusiwaat ci njabotam gi nga xamanteni xamul lu bari na ci ño xamanteni ñu garabi tubab ndax da leen daan faj ci garabi wolof te yeñu fajj bu wér te ñu ci bari bari bari bari Cheikh bari bo leen di fajj te ñu koy xaar ci am fajj diko xaar ci lañ ko daan xaar ci lepp boobu ba tay nak lu bari bari so ci bi lu ci bare bare soo xam ne donte bàyyi na ginnaaw ñoo xamante ni ay xale lañ ñuy débrouiller ci wàllu liggéey bi mais bari na loo xamante ni Cheikh Bara moo ko mënaloon boppam te lu ci bari soox na ci liggéey bi kon nag ñoo ngi lancé appel ne màggal gi nag moom ñu bàyyi ko ak ñu ñàkk bàyyi lam ñu digal ci taxawaay ci màggal danañ ko fas yéene def ba mu sëkk waaye bu ñu sañoon lu ñu gënal moom mu dellu si incha allahu rabi taala ah, ñu àndandoo ak moom màggalu Tuuba loolu lañ doon tëjee bu ko defee Baye Mbaye tëj li nga xamante ni mooy jotaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

ما غير مم فهم أنا لا أسمع غير مم تقربي السلام عليكم من سخمنا باخو ما سخدي وخ ما خمنا دا أملو ما يلير التورك ci état de santé Serigne Bara comme ni ko Adama Ndiaye waxee léegi rek depuis le 4 juin ci la nekkoon ci loxoy gars yi comme noonu buñ ko enquêté ba xam ne moom defu dara ba juge bi defal ko liberté provisoire ñu def appel depuis le 28 nag ci la jël engagement boppam xam ne moom kat defu dara te nit ñi liñ ko doon topé lepp lepp lepp lepp lepp lepp xol nañ ci téléphone ndax bo xolé bi ko fi jël ci dañu waxon né dafa am ay transaction da koy def di transférer nit ñi xaalis ngir ñu tal ak di wax di wote biñ xolé ay téléphone nak gisunu dara dara dara ci lañ ko delloo mom nak depuis lor moo ngi doon tok and ak ngorom ba niñ ko def bam jeex tak léegi depuis le 28 nak moom moo jël engagement boppam ne injustice bi nga xam ne teg nañ ko ko moom dafa bëgg mu dakk moo tax mu entamé woon grève de la faim boobu bi mu ko demee nag bi mu ko commencé sëriñam sëriñ Moustapha moom sëñ Baara wool na ko pour mu bàyyi ci diggante bi bàyyi na fi ab diggante bi mu xoolee nag affaire bi nag jëmur kër ci la ko jëlaate bi mu ko jëlaatee ci lëkkat bii passé bi mu jullee tisbaar ba pare julli ajum bu fare ci foofu pavillon spécial foofu la daanee malaise ñu jël ko indi ko principal comme ni ko gars yi waxee biñ ko indee principal urgence lañ ko yóbbu biñ ko yóbbee urgence après lañ koy dogg yóbbu réanimation la xam naa ne état bi euh, kaam dafa xawoon a critique trop depuis vendredi nag samedi dimanche ba lundi ci la famille bi doo ko xam ne sëñ Baara moo ngi principal ci la ñuy doog a woo xamal nañu moo ngi réanimation bi ñu ko xamee tamit dem nañ fa bi ñu fa demee tamit amuñu woon accès ci moom ndax ba tey comme ni ko gars di waxee ay fake news moo ngi jug ñaan may nañ ko liberté provisoire bi ñu ko waxee Pape Alé euh, maa woo maître Moussa Sarr mi nga xam mooy avocat mu ne ma mayeguñ ko Pape Alé rek lañ ko may gis nañ bi ñu xëyee tamit nit ñi bind ne may nañ ko liberté provisoire ñu leen wax tamit ne leen Sëñ Bara depuis ñu jàpp ko ba léegi kenn mësu koo bàyyi. kenn musu ko bàyyi ba legui ni mo ngi ci loxol yoon lolou bëgg na tamit mu leer bu baax a baax a baax depuis ñu japp ko ba léegi kenn kenn musta bay seigne bar ba fi ñi waxe ni ni ni mo ngi ci loxol yoon lolou mo dama ci bëgg a insister ndax information yi tout le temps day ñew ci man nañ ko nañ ko lolou bëgg na waxar ko tamit kenn kenn kenn musta bay ba fi ni bu agone bu àggee fi ni nii garde pénitentiaire yi ngay fekk ci bundu ba ñoy taxaw ñokay garde fofu ci principal ci réanimation bi lolou amé jëm nañ ko gis mënuñ ko gis après bi euh, bis si waatee dem naa fa ñu may ma ma gis ko li tax ñu may ma gis ko nag état dafa xawoon ne critique ba moom ci boppam mu waxal boppam li ñu faj bëgg dafa bëgg ñu arrêté ko bëggatul kenn ku ko laal bu fekkee day dee mu dee bu fekkee day dund mu dund loolu la utiliser mu teg ko ci lan xam ne nag injustice lañ ko teg ndax ginnaaw nit ki jàpp nañ ko ne ko da ngaa def ñu dem ñu xool ne la yow defatoo dara ba liñ jàpp ne ci la ngay defee delloo nañ la ko léegi nag injustice boobu ci la munta muñ teg ci tamit da taalibeeb Serigne Touba te it lépp lu mu am tamit Serigne Touba la ndax boo ñëwee këram gii boo xoolee ni mel foto yi Serigne Touba nga fi fekk këru Serigne Touba la ajjuma ji bu fu masaan a fekk day fees del jàngkati xasida yi dañ fi nekk ay moo ngi ni toog fii lañ daa di ko jàngal xasida lim am ku néew mu koy bokk ak ñoom kon kooku taalibeeb Serigne Touba la kooku taalibeeb Serigne Touba la doomam ji njëkk am sëriñ Sidi Maxtaar la ko tudde moom la Baye Diop tudde ak Sidi Maxtaar Ndiaye ki ci toppaat mu tudde ko Soxna May Soxna May mooy taawub sëriñ Sidi Maxtaar ki ci toppaat ci kaso bi ko fekk moom la tuddee yaayu sëriñ Sidi Maxtaar kon kooku taalibe sëriñ Tuubaa ci engagement yi boppam nag moo jël boppam ne moom moom suñu baara moo wax ci làmmiñam ma dégg mu ne ci boppam mu daane ma fii lenn moo mën a am geref bi kenn mënut a tax ma bàyyi lenn rek mooy mën a am màggal Tuubaa moom du ma ko defee fii ñaan lañ ko nak mu ne mu ne du ko fi def mu ne day continuer grève bi faatu magal ga ñu yobbu ko sur ko Touba mu bokk ak neuy magalé ko fofu wa ila ñu bayiko mu faju même buy faju sax day dem ba Touba tok fa magal way magal Touba bi mu ba léegi ni mu su ko rat kon du injustice bi ngi ko tek motax muy rate Touba lol nak di ñu na ne ak gëmam seigne Touba ak bëggam seigne Touba moko jaral lol ndax lim waxon fi waxoon ko nu mu tuddati waa ji nekk 2STV bi ngolngol fii la toogoon bi nga xamee ne attaqué na Serigne Touba mu ne ko man dama xaju ko xaju sëriñ Touba la mu ne ko Serigne Touba moom képp moom moo ma jaral dee kon loolu nag firnde la fii mu toll nii situation fi mu toll nii lool day firnde la moo xam nekk nag ndax fi ne ne màggalu Touba moom jaral na ko moom màggale ko ci bàmmeel yi waaye du ko màggale ci kaso bi moo taxoon faj mi ñu ko doon faj mu bëggoon koo arrêté ñun nag ñoo jël suñu engagement boobu wax médecin bi na ko nag na ko continuer faj ndax lu mu mën di doon tamit dañ koy waxtaane lii may wax nii rek état fii ma toog nii bi ñu ma woon ne ma sëñ baar faat na dama koy gëm ndax gis naa ko te xam naa fi état toll ndax tiim naa ko man lu ci bëree bëri dama ko yor ci moom mais wallaahi naa si bi may wax moom xameewu ma baat bi buy wax doo ko mën a dégg ndax da ngay sëgg ci moom ba pare doo ko xam li muy wax ndax ku toog 15 jours yoo xam ne lekkoo naanoo foofu la sa état mën a tontu